yaa maalikal mulki yaa man jalla al xawaadim irham jamii al waraa yaa haadiyal radaa yaa maalikal mulki yaa man jalla al xawaadim irham jamii al waraa mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa maa ngi nuyu mbokk jullit yi fi yépp di nuyu mbokki taalibe yi di nuyu moo xam góor wala jigéen mag wala ndaw di leen ndokkeel di sant bu baax a baax ci seen di jéggulu ci ni nga xam ne noonu la liggéey bi yàgge rawatina wàllu jotaay bi kon noo ngi jéggulu bokk yépp jéggulu kilifa yi di jéggulu bokk taalib yi fi teew yépp ndax toogaay bi yàgg na waaye lépp aw yiw la lépp te yàlla la yàlla nag moo def moo baaxoo déen ñoom li ëpp ci seeni jataay guddi la moo tax ñaare bu am ndaje teelee tàmbali sax duñ mën a ñëw ndax ñoom seen lépp guddi lañ koy def kon naa ngi nuyu bu baax tey siyaare Cheikh Mouhamadou Mountakha Bassir di ñaan yàlla mu yàggal ko fi tigëral ko di nuyu bu baax sunu kilifa sëriñ Abdullahi Mbàkke yàllaay góor mi nga xam ne mooy xalifatu sëriñ Maam Mor Soxna Jaara di nuyu bu baax sëriñ Mbusoobe Buso mi nga xam ne moo toog toogaayu sëriñ ak sëriñ Baara mi nga xam ne moo toog Saa Buso di nuyu bu baax sëriñ Seexuna Buso mi nga xam ne mooy nekkal sëriñ Talhat Bousso nekk ci bopp njaboot bi te sëriñ Jiil nekk ñi toog ànd ak sëriñ Saliou ak sëriñ Mourtada dafa xaw a sori moo tax mënta teew ci jaraay bi waaye ñu ngi koy doog a woote ren ma ñaan yàlla mu defal ko jàmm ba eh, ñi nga xam ne moo toog te tooge fii toogaayu sëñ Abdullahi Mbàkke yàllaay buur ngir lim ko fi lim ko yónni mu fi bu dul loolu it at mu jot ku yàgg ñëw ci bis bi yàgg daa gis ne saa yooyu ñuy fekk ko fi mu toog ba ñu ko tàmbalee def ba léegi mosuma fàttali ko foo xam ne sëñ Abdul Ahad ñëw toog mosuma ko fàttaliku musuma faat du koy sëñ Abdou Khafour wuute ko wala sëriñ Moutala wala sëriñ Moustapha mi wala sëriñ Mamour te ren mooy nekk fukki at yi ak benn kon ñoom bis bi liñ ko tuddee sëriñ Mamour soxna jaara damaa jëlee sëriñ Mamour waaye ñoom ñii rek jaag na yaay na ñu jël bis bi tudde ko sëriñ Abdou Lahad mii toog jaar na yi ñu tudde ko sëriñ Abdou Khafour wala sëriñ Moustapha mii wala sëñ Mamor wala sëriñ Bassirou yi ñu taxawoon di wax ndax ñoom ñëpp waa kër borom sàmm lañ kon nag ñi ñi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm jataay bi yéguñu lenn lu ci yokk ndax ñoom niñ teewi nii noonu lañ daan kon ñoom ngi leen di bu baax a baax a baax di leen gërëm te ndaw lu sëñ Abdoulahi Mbàkke yabaroon it seen jëmm yii moo ñu ko dàqal ndax ñoom lañ gën a xam ñoom lañ gën a miin ñuy nit ñu baax nit ñu bëgg lu baax nit ñu bëgg ak bokk kon hmm. sëñ Abdoulahi ñu ngi lay nuyu yaag mboolem suñu xarit yooyu nga àndal yépp suñuy wëllëre di nuyu bu baax imaam di nuyu bu baax chef de kàddu yi rafet na al imaam moom tam noonu kàddu yi rafet na di sant bu baax it sëriñ Isxaaqa Mbàkke mi fi jóge léegi moom sëriñ Abdul Hakim di nuyu mbooleem koo xam ne bàyyi koo nga Tuubaa te bokk ci njabootu sëriñ Talatu Buso ñëpp ñëw nañ muy góor muy jigéen ne ko sëñ Abo waxee léegi sëriñ Seexuna moom tam ñu ngi koy doog a kon moom tey ñu koy nuyu di jaarale nuyoo bi ci kii ko fi teewal di sëriñ ji bi di nuyu njaboot suñu talaatu gépp soxna maam aw ñu ngi fi soxna aji ak sunu yaay soxna Njóoba Njaay ak soxna ma Assa Busaak soxna Loota Kebe ak mboolem ñu jóge Tuubaa ñëpp waa Mbar kenn di suñ ñëpp teew ne suñu demee rek dañuy juum di nuyu bu baax e, sunu wëlëre sunu xarit Isaa ak e, Ousmane Diagne ñoom yëkkati ay kàddu léegi ak Alhaji Amar Samb di nuyu sunu xarit eh, Omar Guèye si ñoom ñu gën koo xam ci Mañoon Laay di leen sant ci seen taxawaay ñun ñëpp di nuyu mboolem daayira yi fi teew muy ñoo xam tijaan yi laayeen yi xaadir yi ñaseen yi kenn desul mboolem daayira yi nekk ci gox bi it ñëpp teew ñin gisagun ak ñi nga xam ne fi lañ yendu ndax ñu bare bari tey fi lañ yendu ci daayira yi te buñ ca tuddee waa ahbabul mustafaa mu yóbbaale daayira fi teew yépp eh, di nuyu bu baax di nuyu bu baax tey gërëm monsieur le maire yónnee yónnee na fi dafa génn di nuyu Papa ñu ko fi teewaloon tey ak eh, sous-préfet ñu koy nuyu di ko sant moom tam ci taxawaayam ñi nga xam ne yabal na leen fi ngeen ñuy sàmm kaaraange gi muy ñële taxaw di waa sappoor ak gendarmerie ak waa Croix-Rouge ñëpp ñu leen di sant bu baax a baax di nuyu leen murid yi fi teew yépp nag bàyyiwuñ kenn ndax lii lépp limoon nañ ko ba mu jaar waaye dañ doon jaaraat ci kilifa yi rek sëñ Basiru Jaxate mii fi la yendu soxna Xadi Njaay naka noonu ak mboolem daayira yi ci gox bi kenn gisul képp ku bokk ci Xidmatul Xadim wala ñàkk caa bokk bokk yi nekk tund ñëpp ci lañ bokk ñëpp ci lañ bokk fii Banjara suñ suñ mbay ja léegi la fi jógee te yow suñ bu dami sëy ñu nuyu moom tam taxawaay bi di nuyu eh, bu baax sunu waajur wa te di ko ñaanal soxna Xadi Njaay yàlla gën ko fee yàggal te ko eh, di nuyu sunu wëlëre sunu xarit Baye Mbaye Baye Ndao moom Baye Baye Dawuda Mbaye moom sunu xarit la sunu lépp la ñu koy nuyu bu baax a baax ak pour mën a ne di nuyu sunu doomi bokk yi teew yëpp ñoom sëriñ Moustapha Bousso ak ñoom sëriñ Saliou Ka ñoom bokk yëpp rek sunu xarit sunu wëlëre suñu boole mbay fàttewuñ ko ñu ngi koy nuyu di ko siyaar di di ko gërëm bu baax ci fa mu jóge na waaye def na itte ba egsi moom sëñ boole jërëjëf di nuyu bu baaxee waa dëkk bi yépp ñépp ñëpp tew nañ dëkk bi kenn desul ñëpp teew su suñ mënoon a jaar ci tur pour tur dañuy lim ñëpp waaye ñëpp teew nañ kuñ tudd am ak kuñ tudd jàppal ne amoon nañ yéene tudd la jaar sa tur waaye jataay bi limoon nañ ko ak ñi nga xam ne gannaaw bi ñëwaat nañ te seetluwul nañ waaye ñëpp teew nañ ñëpp fi nañ yendu bi mën naa ne mbokk taalibe yi nga xam ne ñoo ko woote muy murid yi sax defuñ ci dara ndax lépp seen mbokk taalibe yi ñoo leen ko defal muy daayira yi nekk ci gox bi ñëwoon fi yendu fi ak waa dëkk bi di laayeen yi ak tijaan yi rawatina waa këram day baax kon ñoo ngi ñu ñun ñëpp di leen di leen sant di leen gërëm mboolem suñuy mbokk fu mën a ne Touba Mbar Dakar fu fi mbokk nekk wala xarit rek wala ñëw nga ànd ak ñun bis bi ñii ñëw nañ bëgg démb ñii ñëw démb ñii ñëw tey si talaatu ngeen ñoom ñëpp fàttewuñu leen ak mboolem ko teew ci biir jataay bi yëpp rek eh, kon ñu ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di nuyu waa day eh, daayira bi nga xam ne moo bàyyi ko bayaax teew nañ ak waa góoróom am ñëpp ñu leen di di siyaare bu baax a baax a baax di nuyu sëriñ Basiru Mbàkke mi fi teewaloon tey sëriñ Cheikh Awa Balla mi nga xam ne moo nekk fii ci pour leen di bu baax baax di jé di jéggulu guddee gi waaye lépp tawfeex la bis bi lépp luñ ci yaakaaroon rek ci tawfeex am nañ ko fi te lépp ñu ngi ko amee di barkeb Sëriñ Tuubaa ak sunu maam yi ñu ko tëddee woon mi maam Mor jàpp naa ne bis buñ mas def bis bii ñu tuddee borom saam moo ci tax mu ngi gën a neex kon ñu ngi gën a santaat Sëriñ Tuubaa baax tey gën a santaat sunu maam jooju di maam Mor ndax moom dañ koo bëgg ci suñu xol buru dara yi bi soññi bokk bi yi kàddu yu gàtt danañ ko tënk bu baax waaye daa mënut a ñàkk ci nit soo woowee ay nit ba ñëw war ngaa soññiwaat bokk taalibe yi nga xam ne ay ndaw lañ te am na ñu njëriñ kii Sëñ Tuubaa waaye kilifa yi moom kenn du leen soññ ndax ñoom dañu war a nekk ña nga kon bokk taalibe yi nga xam ne dañuy dañoo bokk ñun ñëpp di ay ndaw di xeñtu Serigne Touba ak bokk julli yëpp la jëmale kàddu yooyu lu mu kàtt-kàtt la ca njëkk nag weesuul rek mooy eh, sax ci ndigal yi yàlla yi te bàyyi tere yi li yàlla digaloon mu ñu jaamu ko ñu du ko def wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun yàlla nee na binduma nit ak jinne ngir lu dul ñu dama jaamu jaamu gi wax na it na nga ko bëggee wa maa umiru illa liya'budullaha muxlisina lahu diin andi yam kon mel na ne yooyu mooy yi nga xam ne mooy islaam waaye nag am na lu koy taaral muy jëflante bu rafet ci diggante jullit ñi te mooy jikko ju rafet ndax jikko dañuy wax ne euh, diine ju ne am na jikko waaye jikkoy lislaam nag mooy kersa kon jikko ju rafet làmboo ko baax na ndax moom lañ tàggeewu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu borom ne ko innaka la ko innaka la ala xuluqin moom yonent bi mu wax ne wax ne yàlla moo ma yar te yar bi tax ko rafetal daal di moo tax ñu ne amul kenn koo xam ne sa jikko mën naa rafet ba gën a rafet jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen ko suñu borom mandargaale ci biir ci biir alquran moo tax daana wax naan innama bu'istu li utammima makaarimal axlaaq dañu maa yónnee ngeen ma ñëw mottali jikko yu rafet yi jikkoom yooyu nag laajoon nañ sayyidatuna Aïcha ne ko lan mooy jikko yonent bi mu ne mu ne alquran soo bëggee xam yonent bi daal luy ay jikkoom alquran yi daan dox la ci kaw suuf jikko yonent bi nag dañu ko royloo suñu borom moo ne na roy yonent bi lépp lum def na ko def lépp lum lum andi na ko jàpp te tëju ko wa maa aatiikum rasulu fa xusuuh wa maa nahaakum anhu fantahu lépp lu mu leen tere ngeen bàyyi ko te nag jikkoom ji gënoon a yor xam ne moom lu gën a nag làmbaayoo gannaaw la yàlla def ci moom mooy kersa ndax jikko ju rafet la ci jiitu kersa da caa bokk ndax ki gën a rafet ak ngëm yàlla ci ci ci nit ñi mooy ki gën a rafet jikko ci ñoom akmalul muminina imaanan ahsanuhum xuluqa kon nag nañu am ci ko ju rafet ndax ci diine la bokk ndax mooy mboole makaarimal axlaax yépp la ci njëkk mooy kersa moo ci jiitu kon nañu am kersa bu baax nañ njëkk am kersa ci jikko ju rafet kersa nag mooy lépp looy wax wala nga di ko jëf nga séddike yàlla sa borom tabaaraka wa taala ci bala nga koo wax wala bala nga ko jëf ndax diine bu fekkoon ne ngëm yàlla bu fekkoon ne dafa rafle mbubb buñ doon laaj ay yéreem dañ naan benn ba mooy taqwa benn ba mooy kersa mooy yéreem yi nga xam ne moom la ngëm yàlla bi mat képp koo xam ne sa diine sa kersa mat na sëkk dara manqué wu ca jàppal ne sol nga bubbum taqwa képp koo xam ne it sab taar rafet na ba ñëpp mën laa xool tamit jàppal ne sol nga bubbum kersa moo tax euh, kenn ci saxaaba yi dadaa wax naan man kasara man kasaawul xayaa sawbahu lam yar naa sa ay boobu képp ko sol mbubbum kersa rey nit ñi duñ gis sa ay sa sikk yéen bi nag waxoon na ne ngeen kersawu yàlla ngeen am kersa seen diggante seen borom dëgg-dëgg kersa ñu laaj ko dëgg-dëgg kersa mooy lan mu ne mooy ngeen di sàmm seen bopp ak lu ko wër mooy nit ki làmmiñam wii bu mu ci wax lu xaraam noppam yii bu mu ci déglu it lu xaraam bakkanam bii bu mu ci xeñtu lu xaraam gémmiñam bii bu mu ci wax lu xaraam loolu bu ko defee sàmm na li wër boppam wala bàq nu ko maa xawaat biiram bii na fexe ba bu mu ci def lenn lenn loo xam ne lu xaraam lay doon loolu nag lu bàyyi xel la kon képp koo xam ne sa jikko bëgg nga mu rafet danga nga yooyu ñu wax la ci njëkk na mooy wax aw ñawteef jullit bu ne war ngay moytu di wax aw ñawteef mooy wax loo xam ne soo ko waxee ba noppi pour ne am ca kersa Sëñ Tuubaa bi wax na ko ci ak jawharu nafiis nee na dëgg dëggi mbon mooy nga wax wax ju bon ba noppi tourné am ca kersa saa yoo waxee lu ñaaw ba noppi kàddu ga daanu yow sa jëm bopp nga yëg ne am nga kersa rek ci wax ji jàppal ne wax ju bon a ngi noonu mu ne na ngeen am kersa ci seen digganteeg seen borom ndax am na benn waaye bu ma sa wéet ak jigéen namm ci moom ñaawte daan na ko kenn gis ñu lay kuddul biddiw yi ndaw si ne ko ana ana ki bind biddiw yi te mooy suñu borom tabaaraka wa taala moo tax am na benn waykat bu ko xam sax ne wa saa xalawta bi raybatin fi zulmatin wa nasu daa'iyatun ila tughyaani fastaxi min nasril ilaahi wa qul laha inna lasi xalaqa zalaama yaraani saa yoo xase xam dangaa dem ba wéer ba nar ba sa bakkan nar laa yóbbu ci aw ñaaw téef ci woo ne na nga daal def am kersa sa diggante sa borom ci jëf ñaaw téef woowu nga wax sa bakkan na kat yàlla mi nga xam ne moo bind lëndëm ba kenn gisuma kat mi ngi may gis nga wax ne ko kon nit ki su wéetee war naa fexe ba am kersa ci jëf lu bon ba am wax ndax kersa moo boo ko dee seet moo gën a dëgër sax gën a gën a yomb ak ragal ndax nit ki ngay li ngay ragal saa yoo demee ba gisoo ko rek mën nga koo jëf ndax yàlla lim ñu sant lépp eh, ñàkk jàkkaarlu jëmmam ji dëgg-dëgg moo tax sax suur ngir ci sax nekk ci waaye suñ moroom doomu aadama yi dong nekk ci kaw tali bi ñu leen gis lañ ñuy sant waxtu bu nekk dañ koy nekk kon yàlla waaye nag saa yoo xasee ne man de jomb na maa def nangam am naa kes def nangam rek loolu moom nga wéyata nga wétlu koom da nga koy bàyyi xel doo ko def rawatina nag muy ak mu yàlla ci bañ a def aw ñaawteef ci bu ñu wéetee ak bu ñu wéetalikoo suñ tubaa daana wax naan wax tax yi min nasri rabbikal alim fa adamul xayaay simatul layin na ngeen di am kes seen diggante seen borom ndax ñàkk kersa kat bokk na ci mandarga jikko yi gën a bon mooy nit ki ñàkk am kersa ci digganteem ak borom te mooy saa saa yu wéetee rek jàpp na yàlla gisu ko ba lu ko neex def wala lu ko neex wax moo tax dinaa wax naan saxaar yi daan wax naan na ngeen di da ngeen di ànd ak ñoo xam ne du ngeen teqli koog ñoom na ngeen am kersa ci ñoom te mooy malayka yi nekk seeni mbagg muy kiraaman kaatibiin ya'lamuuna maa taf'aluun ndax xam lépp lu ngeen def ci ab safaan dañ koy jëf dañ koy bind boo léegi ñu teg ko seen kanam kon nit góorgóorlu ci am kersa bu baax a baax di wax tamit wax ju jub wax ju baax su borom ne woon na ngeen ragal yàlla ittaqullaha wa qulu qawlan sadida te ngeen di wax wax ju jub joo xam ne ku ko dégg rafetlu ko ndax te mooy defar ak mbokk jàng alquran wax lépp loo xam ne tax jëriñ ak jullit nga di ko def di su moroom wax ne mbaax mbaax nit ku ci kaay ma gis la rek waaye mooy ngay digle lu baax di tere ab safaan te fu ab diggante naree yàqu nga defar te bañ yàq moo tax yonent bi daal wax naan dee leen gëm yàlla képp ko xam ne gëm nga yàlla gëm bis pénc nangay wax lu baax wala nga noppi fu lu baax jeexee rek na am na ku mas a laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dama bëgg nga tegtal ma loo xam ne su ma ko defee dinaa ma dinaa mën a dugg aljanna dullanii ala amalin yudxilnii janna yonent bi na ko na ngay téye saw làmmiñ ci lépp lu amul njariñ na ngay téye saw làmmiñ amsik alayka haazaa daal di junju làmmiñ waasaare ju juñu làmmiñ bi ne ko na nga téye sa làmmiñ lépp loo xam ne aw ñaaw téef la bu ko wax bu ko jëf ndax nit lépp loo xam ne làmmiñ lépp lum bay dana ko góob fa inna al insana yasra'u bi qawlihi wa amalihi saa yoo xase xam nag ne man sara xayran min min xawlin aw amalin saa yoo xasee xam ne danga bay bàyyi nga lu baax wax ju rafet wax jiwu da nga góob lu baax da nga góob lu rafet waaye saa yoo xasee xam dangaa bay wax ju bon moom nga ji jàppal ne boo ëllëgee da nga la nga cay jëlee mooy ak rëccute kon nag ñu téye sunu làmmiñ ci wax ju bon lépp loo xam ne xeetu ñaawteef la ñu di ko moytandiku te mooy diggante jëw rambaaj ak fen ak yàq ak diggante li nga xam ne moo bari ci dëkk bi lool mu ñu dëkk bi nag jubluma ci déen dong waaye Sénégal doonte am na déen tabari fi lool jëw moom li gën a wasaaroo ci àddina ci la bokk ndax ñaar ñu toog dend sax la diggante xat-xat-xat ña ngay wokkante seen morom mañ jàkkaarloo di jëw koo xam sax xañ na sax ñu bokk sax fuñ dend nañu moytu ko jëw lu bono bon la loo xam ne suñu borom daf ko misaal nurale ko sax ak lekk métum doomu aadama ak yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuuh kenn ci yéen bëggul mbokk mu faatu mu dem jël ko di dagg ci yaram bi di ko lekk képp koo xam ne yaa ngi toog di jëw ak koo mën a jëw jàppal ne yaa ngi lekk mbirum dogaar la maanaam di misaal li tuddee bëtu guddi muy dëmm biir soo ko bëggee xam mooy mooy mooy aw jëwkat képp kuy jëw rek dugg nga foofu ndax loolu moo lekk mbedd ñooy nañu koy moytandiku bu baax a baax sunu boroom yéen di saa sa toog nag sayyidatuna sa toog am soxna su jóg ci tam mu ne kii day lim yére yi soldat daa gudd mi ngi buubu de loolu rek a wax nit bi daal koy forcé na ko wàccul wàccul wàccu wàccu muy ndawal bu bari ak deret mu ne ko lii day bu reesoon da nga dugg sawar law xadamat laa bu dañu doxale xal naar lii ngi lii day bu reesoon sa biir bii faaw da nga dugg sawar tey li ngay bokk bokk ci man nekk sama soxna man yénte bi na la wóor ne mën laa teen bu sawar te boo xoolee la mu wax sax bu doon suñ jamono da naan la mu wax ayib mooy baskat li mu sol nii day ëpp ki nga xam ne mi ngi toog di jëw nit suba ba ngoon jot daanaka bi ñu ngi wax sax naataange ci réew mi waaye bekkoo dëgg la ko indi mooy jëw dëkk boo gis mu néew lay garab ndax laa ëpp ay jëwkat romb garab gu saq naat léegi lu jafe la loo ko waral yandu ci kii yandu fa ba ngoon jot yandu ci dere góor ñi rek koo jël ba mu jeex nga yàlla ko des loolu moo tax kenn mënut a fexe ba indi fi naataange ci biir réew loolu nag nit ku ne yaa ko mën a saafaraal sa bopp nañu mooy dund ko jëw rambaaj mooy jaxase aw nit mooy fexe ba gis ñaar ñu ànd ci ak bokk ñaar ñu ànd ci ay xarit diggante soxna ak boroom këram nga fexe ba teqali diggante ba diw lan la wax soo ko déggoon bàyyi bëgg nga ko waaye moom yow la bañ fexe ba seen diggante wala mu fexe ba dugal sam xel loo xam ne sax yow loolu nekku ci woon su ko defee nga tàmbalee xel yaar moom soo ko rombee am loo ko téye mu fex ba seen diggante yàqu mooy rambaay piire ñu noonu bokk bari mi ngi yàqu xarit ak xarit bu dëgëroon di yàqu benn waaye fa moo xam muy góor wala muy jigéen fexe ba yàq diggante ba te la mu wax dara du ci dëgg dafa boole ñaara sos na rambaay ndax la mu wax dara du ci dëgg moo tax su borom bi ñu leen indi leen ab xibaar xata bay yoon ngeen ko leerlu ba xam fan la xibaar bi jógee ngeen topp ko ab rambaaj nag yonent bi nee woon na moom du dugg àjjana nañu moytu ko rambaaj jaxase aw nit fenn wax naa ko léegi fenn moom mooy wax lu du dëgg lépp looy wax rek suñ ko toppee ba ci biir amul lenn lenn lu ci nekk dëgg nit danay fen sax ngir yëkkati bopp waaye ko fen yëkkati moom da nga daanu bëccëg mu ndara kam bi ñëpp ndax ay fen mënta sori moom te it ni muy génne ni mu lay daaneele noonu la yéege nag moom def te suñu borom ne ko man maay fenu diw ci làmm ñu diw lay génne suñu borom rëbb ko digal malaaka yi ñëpp rëbb ko te yàlla ku mu rëbb jàpp la ndax suñu mbokk yi takk der yi rek bu ñu def enquête balaa mat ay fan danañ xam ka def mbir mi rawatina yàlla suñu borom tabaaraka wa taala nañ moo tënd ko fenn te mooy wax joo xam du dëgg rawatina nag di ko jëmale ci ay mooy def loo ne yàlla taxu waaye lépp yàlla taxu yàlla bëgg nga nit ñi rek ne diw de ku baax la lii de moom nitu yàlla la moom moom ab suufi yu la daa dëddu adduna te fekk dëddu adduna ak jekku adduna sax daa bokkul ñu bari dañuy jàpp ne ñu dëddu adduna fekk dëdduwuñ ko dañ ko jëkkuwul buñ ko jekku woon nga xam ne ñii dëdduwuñu ko loolu yëpp faaw ñu ko bàyyi xel ngistal nañ koy moytu bu baax ci waxit noonu wax mooy di wax nit bu ñuy teewee nga wax ci lu rafet comme taxaw rek ci baax bi wax ci sëñ Omar ba ne xaaw bu ndari me tasee rek nga tàmbali na ah nit ñi taxawoon rek waaye man moom xam nga ne ah sëñ moom faayu ma ko sax ngistal baaxul ci yàlla musal joxe sa alal ci ci ci loo xam ne yàlla tax mooy li ñu tudde baatare te dend ak sa mbokkum jullit moo xam ne amut lum añi suba nga taxaw ci tànt di baatare xalis bu weex tàll te xañ na sax bu dee ay jàng wala lu mën a doon leetal benn jox sax defu ca dara waaye soo bàyyee ba mbooloo mi bari nga jóge fële di baatare yaa nañu yàlla musal di baatare loolu lépp boo ko def te yàlla toog ndax li nit di may ci mbooloo cent mille francs te kenn laaju ko jënd naa mbokk ma ko soxla jox ko nañuy moytandi ko jëf loo xam ne ngistar lay doon loo xam ne yàlla taxul moo gën a bon ndax moom bokkaale bu ndaw la nañ koy moytandi ko loolu yëpp nañ koy moytandi ndax loolu naka noonu yi di gëstunte ay bi jàmbur yi gëstu ay bi nit saa boo xëyee rek yaa ngi topp ni du ko gëstu ba xam ci lu mu ne gëstu ko ba wut sax ñu la koy gëstu li loolu yépp dafa xew ci suñ biir ñu ko def te duñ ko bàyyi xel gëstu ay bi jàmbur rek soo ko xamee ne soo génnee ci mbedd mi weer ko diw la def yëg nga diwa bu dee ko yaa yàlla mooy la lu mu defati loolu lépp lu jara mooy yàgg na koo def de yaa ngi koy doog a xam ci moom ah. man ba ma ko xamee ci moom yàgg na te fekk xamoo ci moom dara nañu moytu di wuññi ay bi yi yént bi ne woon na képp ku ay bi jàmbur yi xott xott suturaam yàlla dana xotti sa sutura la yoonal xëyam te koy def ñëpp yëriñu leen dara na fi ne ñu fi gën a ràññee ñuy wuññi ay bi jàmbur amul lenn loo xam ne njëriñ na leen ndax ña nga ayib joo xam ne bu ko yàlla feeñoon rek adduna tukki kon kenn ko ba na ngay wax ci ab jàmbur xoola sa bopp ba noppi dugal ci néew yëpp loo mën a wax wax wax danga wax loo defu danga nga def da nga wax loo xam ne nii da nga def loo waxu moo tax nit ki bala ngay wax ci fexe ba yow la nga def te kenn fekkiwu ko nga doog a def boolewaale waaye di. wax ci nit ñi ab safaan fàtte sa bopp loolu nañ koy bàyyi xel bi metti na trop ak wuñante ayib yi te su mboroom waxoon na sax ñi nga xam ne dañuy siiwal dañuy dañoo bëgg di siiwal ayib yi jàmbur yàlla tëpp na ci alxuraan ne la seen yuhibbuuna am si am faa fi am lu ma xam ñi nga xam ne bëgg saa yu nekk ñuy siiwal rek lu bon mooy fexe ba am ba xam ayib yi jàmbur tàmbali siiwal dem te garam place yi seeni xarit whatsapp yi partagé yooyu yëpp ñu du ko def ngir bëgg ma gaaw wasaaroo loolu lépp yàlla nee na rëbb na rëbb metti metti ëllëg yowmal xiyaam nañu moytu ko di siiwal ay bi jàmbur ndax ka ngay siiwal bu bu fekkee ne mag la am nga bàyyi yow te sa bàyyi mën naa jubali te da ngay nëbb ak njubadeem bu dee sama noonu bu dee sa yi noonu bu dee jigéen noonu am nga yaay lu mën a doon rek boo ko xoolee sa bopp da xam ne am nga am nga loo xam ni la ngay siiwal am na lu ko misaal sa kër kon nañuy suturaalante bu baax a baax nañu suturaalante bu baax ndax yàlla bëgg na ko suturaal ab jullit nañu moytu nag lor nit ñi ci xotti seeni awra ak seeni sutura yént bi daana wax naan laa tusu ibadallah bu leen di lor jaami yàlla yi wala tu'ayyiruhum bu leen di xotti seeni sutura képp ko xam ne xotti nga sutura ab jullit day yàlla weer la ëllëg yowal xiyaam tàmbale ko fii ci àdduna kon nañu góorgóorlu ci loolu bu baax a baax di wax lu rafet te di ko jëf sëñ bi indi woon ci nax ju laa taltamis min uyubi naasi ma sataru fa yaxtika allahu sitran an masaawika waskur maxaasina maa fihim saa sukiru wala toxin ahadan minhum maa fiika bul sàkku di wuññi ay bi jàmbur li yàlla nëbbu bu ko sàkku xam mukk mukk ci ci nit ndax soo ko defee yàlla wu yàlla bëccëgu ndara kàmb sooy tudd nit ki nanga tudd ci la gën a rafet ci moom nanga tudd wax na fi ne ida sita an taxya wa diinaka saalimu wa xissuka maful wa adduka sayimu lisaanaka daa taskul awrat imriin fa andaka awratun wa linnaasi alsun saa yoo dee soo bëggee dund dund gu neex gu amul benn jafe-jafe sa diini mucc sa cër ñépp xam la sa der ñoom si miena sa làmmiñ lii bu ci ay bi jàmbur na nga warmaal sa bopp ndax ñàkk waroon mi nga tàmbalee ci tudd ay bi jàmbur te loolu laam mi di caa gën a foor ndax yàlla bañ na mu génn moo tax mu tëj ko ci biir yeew ko fam ko yeew kenn mun la wax ne de fii la ko yeew wutal ko ay garde corps yu baree baree bare ñu wër ko muy bëñ loolu doyu ko ci mu ñaari kubéer teg ko ci muy ay tuñ ngir bañ rek mu wax gaaf waaye li mbokk mu baax ma daan wax suñu Abdul Aziz Si Al Amin yàlla na ko yàlla dolli yërmande am na ñoo xam ne buñ naree wax jar na làmb sa poos génn deux millions ne dem tëyal ndax saa buñ waxee rek wax musiba li ñuy wax gën njëkk a wax dén mujj wax te njëkk noppi am na ci nit ñoo xam ne loolu moo leen daal waruñoo wax ndax saa buñ waxee rek wax daaf ndax la ñuy wax dara du baax soo ko toppee ba ca biir lu yàqu dong lay doon nañ koy moytu bu baax a baax wa in aftata aynaaka faqul laha fala tabsiri yaa aynu linnaasi aynu su bët bëggee xool lu mu warta awra jàmboo ñoo ko déet nit ñi am nañuy bët comme man boo xoolee seen awra ñu xool sama awra nañ koy moytu bu baax di muñ suñ tubaab la am képp koo xam dafa day wuñu sa yib sax di la xas di la ŋàññ yow na nga fexe ba jël muñ teg ko sa kanam usturi la ay ba masta tax du di suntin nga noppi inna fi sunti raaxatan li samuti saa yoo xasee xam ni dal na nga nëbbu sa ayib sa kem kàttan ci noppi ndax noppikat noflaay la ci ki noppi wajaali sumta in ayita jawaaban ruba xawlin jawaaboo fi sukuti nee na na nga def noppi bu fekkee mënoo tont ay wax bu fekkee mënoo tont wax ku la waxal bu fekkee ku la ko sànni mënoo ko delloowaat na nga fexe ba jël noppi rek def ko kon muy sa tontu ndax borom wax ju bari te noppi rek mooy tontu moo tax benn waay sëñ bi nettali na ko fi damaa damaa romb benn waay bu di ma xas di ma wax lu bon di ma ŋàññ da dem bay jaar sama tur sax naa ma ay eh, diw yow laay waxal ma gerte ne ah xam ne keneen lay waxal xam ne daa am keneen koo xam ne daa tudd bas koo xam ne bokkut ak man wala xada amru ala la imi yasubu ni wa anif ma jéggal ko su ma aqoolu laa yaani ah kii da xam ne waxuma te xam naa ne man lay wax sax lu bën la mu wax lépp mën na ko jënd nañ koy moytu na ko bu baax a baax a baax a baax nañu góorgóorlu ci moytu na ko jikko yu yooyu noonu di jéggale tey jéllale suñu mbokk jullit ku la tooñ nga jéggal ko te yàlla tax soo ko mënee jéggal te yàlla tax ndax gor piir dëgg di jàmbaar dëgg mooy ñu tooñ la nga mën a fayu am kàttul fayu ba noppi jéggale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu wootee lislaam gis ngeen lim daj jóge màkka ñu sonal ko mu dem Taïf ci ay bokkam ay nijaayam ñu sànni koy xeer ba am xaañu ba mu noppee Sidna Jibril na ko su borom nee ma boo boo joxee ndigal rek ma def montagne ji seen kaw daanaka su borom allahumma ighfir li fa noonu laa yaalamuun allahumma ixfir lahum fa innahum laa ya'lamuun yàlla na ngeen ndax dañ na nga jéggal ñëpp ndax dañ maa xamul Sëriñ yaa ko nga naa ko ndar ngay jaari mu jaari ndar ndar bëgg mel ne daaru ngal dëkk wa jarax mu woy ndakaaru soo xaleme yaari guddi ndakaaru ba déglu wax de bër moo wax nga waaw isa sakatu zalika al mabita wa zalika al amura wa sabur taarat ila jihaadi bil armaay nafsi walakin sabanil maay gis nga guddi lañ ko teg ci ay coono guddi ndakaaroo ko dong la cay fàttaliku ngir koor dam fa wooroon jàpp ne barab buñ war a doge la dañ koy dugal ci barab bu ñu war a doge ngir mu dog kooram ndekete néeg la boo xam ne sax moom sax jëmmam sax xaju ci ak sëñ bi ni meloon ci ci saahir ñu di ko puus ba mu dugg ci biir ràbb gi bënn tànk bi basar ci biti ji sànni sib la xam ne na soxna jaara ñëw na ko muñal mu ne saa yu ma fàttali ko guddi ndakaaru yi ak coono ba dañu bëgg jël ngànnaay nag jàkkaarloog noonu waaye yéen it moo may dàq moo tax ba mu ci géej gi ba ñuy bisi la wax jee bari cooree ba lépp ba mu ñëwee dane axawtaan aray tural naa képp koo xam ne sama noonu la rek jéggal gën a ci ci ko ak Sëriñ Tuubaa lu baree bari njaboot Sëriñ lu baree bari duñ sax wax ndax dañuy nekk na foog da nga war a xew sa sa tànk nga teg ko foofu dañuy jéggalante am yërmande yërëm nit ñi te di leen dimbale yërmande lu lu baax la ñu daa wax naan ab yonent laa boo xam ne maa yónni ngir ma yërëme nit ki na ngay fexe ba yërëm ko nit ki nit ki soo ko yërëmul doo ko mën a bëgg bëgg balaa am faw yërmande lay am ndax ñoom ñaar sax dañoo taxaloo faw ñu am yërmande ci jullit ñi daal wax naan moom yént bi day yërëm ñi ci suuf mooy jaamu yàlla yi ndax yàlla mi mi ci kaw yërëm leen am yërmaande ci dimbaleen nit ñi képp koo xam ne da ngeen seq ab liggéey nga war ko caa fay nga di ko yërëm ca fay ga boo topp rek ab coonam la muy daj nga nga nga di ko jox loo xam ne yow leer na yow sax boo futti ko woon di liggéey sax li ngay fay kii ni kenn du ko fay waaye moom la ko te bàyyi njaboot bu dundale nañu am yërmande am ko suñuy waajur ndax yërmande moom waajur moo jiitu yërëm suñuy waajur am ñoom ñeewante te yërëm leen suñuy mag nga xam ne ay kilifa lañ féete ñu mag ñu yërëm leen weg leen comme ni suñu tubaab di wax yu ne woon na sama xeet bi duñ deñ mukk ci aw yiw li fekk mag ñi ñu ngi euh, yërëm ndaw ñi ndaw ñi di lu di mag ñi dañuy am yërmaane bu baax kon ci wàllu boobu am yërmaane bu baax ci ñi ñu yàlla booleel ñu ñu tudd ay soxna fexe ba am ci ñoom yërmaane lool comme ni nga amee yërmaane ci sa doom yi nga xam ne ñoo nga jur waaye soxna yi ñu ngi teg lu méttee métti ci biir néegi sëy duma yi xas yi saaga yi ci biir néegi sëy yi lu méttee métti te jigéen ña ngi koy dund am na ñoo xam ne guddi gu jot danañ duma seeni soxna duma yu métti ñii di mbéj kenn ku ne daal la ngay def waaye soxna sax ne bu dee ku baax bu xëyee kenn du ko dégg faaw ñu am ñoom yërmande loolu donc moo waral tas yu métti yi. soo mayee nit soxna balaa mat ay fan ñu def ñu ne wàcc nañ ndax yaakaar yi amoon yow bu ñëwee da fa fekk te jigéen ku mat a yërëm la ndax moom daa ñëw doole Sëñ Tuubaa daan wax naan li nga def ci moom soo ko defoon ci càmmiñam du tax ñu jox la ko kon néew doole gee tax kon ñi nga xam ne ñoo dëkk ci xas seeni soxna amut ñoom yërmaat di duma nañ koy wattandiku bu baax a baax yonent bi neewoon na ku baax dong mooy tëral jigéen waaye ku safaan dong ku doye bi mooy toroxal jigéen te ñu ngi dund loo xam ne bat na jigéen ñi boo leen si da ngay jàpp sax ne dañoo feebar fekk feebaruñ li ñuy wax souffrir di xalaat moo leen jàpp ndax joxuñ la lu doy muy jàmm it teg ci buñ lay bu bu lee doo ko jël daal ñaari weer ñett ca kaw ngay ne su jàllee nag ñu fàtte la ña ngay dóor ña ngay xas ña ngay saaga te ne fi ne boo saagaa sa soxna sax bu dee moom ci càttekat sëy mën na faa yem mën na ko tas kon lu doy waar la loo xam jigéen ñi dañ koy dund bu baax a baax tey wala nañ cee jàppale góor ñi di yërëm jigéen ñi baax waxuñ it jigéen ñi toog rek waaye ñun dañu war a góorgóorlu ndax jigéen dañu war a xam ñoom duñu ay jaam waaye ay jaam yàlla lañ léeg nag jigéen da koy def ba jàppee ko sab jaam nga xam ne lépp moo koy def lépp moo koy def nga teg ca nag xas guddi xas bëccëg di di di toroxal nga gis koo xam ne day fonk doom fonk koo xam ne sax fonk noonu sax soxnaam loolu yëpp nag ci xeeti njuumte la nañu yërëm jigéen ñi te di leen euh, dimbale te di leen suturaal te yàlla rekk tax ndaw ñi it noonu bàyyi mayi sax ci lañ bokk muy fas yeeg xar nag yi lu nekk rek war ngaa fexe ba am ci ñoom yërmaan ndax ñépp mbindeef yàlla lañ coono yi ngay teg fas yi walla mbaam yi war koo seetaat lu diis ba ëpp nga teg ko ci boole yar bii dal nga di ko ko dóor foo xam ne yow foo yow bëggu ko ko gis ci yow nga di ko fa dóor ba mu xolli ko loolu lu jar a xel la yàlla nañu yàlla dimbali nag defal ñu tawfeex yàlla nañu fekk déwén ak jàmm toogaat fii ñun ñëpp kenn bañ a manqué barkeb sëñ Touba surne xasida bi la 12 avril la ñu ngi koy waajal bu baax la ko ñëpp waajal yàlla ñu ci yàlla yóbbu jàmm te ñu romb ko euh, te fekk ko ay déwén déwén sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp képp kuñ tudd amoon nañ yéene jaar sa tur suñ mbokki euh, cameraman yi Bambilor TV waa Touba Vision ak borom matériel bële ak ñoom sàppoo rek sàndarma rek ñëpp rek gërëm nañ leen ak ñu nekkoon ci biir baax jàppoon ci organisation bi d'ailleurs yi kenn desul ñëpp teew nañ gërëm bu baax tamit ñi ñu yàlla booleel muy soxna Ndeye Ndiaye ak soxna Fatou Ndiaye soxna Ndeye Ndiaye mu ñu koy gërëm bu baax ndax daara jee mu ne ñun léeg ñu génn ba muy sàkkat la fa nekkoon ak jaan yi da ko fekk guddeeg bëccëg ba tey jii la fa nekk gudd ne nekk fa te saa boo xëyee mi ngi ci xale yi leen taxawu ba ni ko suñ Moustapha waxee saa boo xëyee di toog ci daara yi ji man jigéen ñi jàngaloo moom moo leen jàng kon lu nekk lu nekk ci ndaw jigéen ñi rek nañ jàpp ne moom moo ko def ci ñoom ci yar bi ak taxawum ñu ngi koy sant te koy ñaanal njaboot yàlla def ci barke def ci tawfeex asalaamaaleykum wa rahmatullah amin amin يا مالك الملك من جل أن خاد ارحم جميع الراد